man Amadou Fall. i samay jarbaat lan ak sumay doom ñoom ñoo dem ci géej gi ah man naan man dama ñëw dem géej ñëw teer ñu ne ma kii dafa am benn gaal paan gaal bi bi mu paanee ñoom Papa Diop dem nañ seeti leen ma ah, ñu ne waaw bi ñu demee seeti leen après ba sa ëllëg sa ñëwuñu ma ne bon rek booy ñëwuñu de ñu demoon seeti leen ñu ne ma ñoom ba léegi teeraguñu ma ne bon gaal googu lenn rek mooy mën a am essence walla machine si laajte bi ma laajte ñu ne ma ñoom yoroon nañ essence bu doy yor quarante chevaux ak benn quinze chevaux yor nañ tam aussi ab dund ci biir gaal gi ak ndox ma ne ah ñu ne waaw ne bon gars yi damay xalaat seen GPS am problème walla daal foofu daal la sama xel commencé ñaawe daal ah, foofu la sama xel ñaawe ndax bu ñu yoree GPS yor essence bu doy ak dund yor ñaari machine lenn rek mooy mën a ci sama xalaat bu gàtt suux wala ñu sëtëx ñu dem ba dépassé daal foo xam ne nii daal boo seen appareil am problème dootuñu mën a cay dellu si. tey daal si jamono jooju am léegi yaakaar naa suma juumul 16 jours la xaw ma daal xaw ma 17. wa ah, sama dom momu jono dem seti len ak dudu kan ak Lamine ah Lamine no xam nga ñom fi nek ni yalla dafa def ne ñom bi ni dem yor na ñaari machine yo xamne yu normal yu bes ñaari machine yu bes ta boy bi gal gi matul at gal gi mu yóbbu gal gi màggetul matul at man dal pour man dal limay japp dal moy yalla mo ñew ak biram rek. appel bi ni lancer moy dal ñu si. sunu xel ci yàlla te xam na man mi toog nii di wax ak yéen jëli naa ñut ñu dund jëli naa ñoo xam ne dañoo dee jëli naa ñoo xam ne nii quatre jours lañ def géej ma seeti leen jàpp leen andi leen jëli naa ñoo xam ne nii une semaine lañ def géej ma seeti leen jàpp andi am ñoo xam ne neuf jours lañ def ba ma ñëwee fekk leen dañoo dee ci biir gaal gi ma jàpp andi comprendre nga njàngat moomu laa am bi ñu demaatee bi ci biir bon ma xam ne lépp yàlla la tax gënuma fee moole te li tax yàlla di ma wanale ak loolu yëpp man dama gëm ne daf may wax na ma sa bés ngi ñëw parce que am na bo instant boo xam ne ni bi nu ñëwee digloo ma wax ma ay sarax yu ma war a def ñu toog ànd booy booy caaro yi ñoom ñu dem jëndi ko bi nuy ñëw jëndee demee marché bay ñëw am na benn waay boo xam ne dafa kal benn camion dugg ci suufu camion bi camion bi rëss ci kawam te ñooñu ñoo sànni sarax lañ sànni ñëw yëkkati wa camion bi fexe nu waa génn ba mu génn mu wër mën a bon ñooñu saraxi waajooju lañ doon jëli bon man lu mu ci mënti doon rek ah su ma xoolee démb ne jëli naa ñu dund jëli ñu dee te ñooñu sumay doom gënul seen i gënu leen man it gënuma seen i baay man damay jël lépp delloo ci yàlla non état moom man daal masuma fàttaliku daal loo xam ne nii ñu ne daal gaal bi réer na weesu na deux jours trois jours état ñoom dem nañ jël seeni matuwaay dem jàpp ko andi man li ma ci def man man boog man sama xalaat bu gàtt li ma ci def ñoom état defuñu loolu chance bi ma yàlla tombale ak loolu état defagul loolu ñoom nag ñëw nañ fi bu yàggul ministre bi ñëw na fi bi mu ñëwee it ñu ngi koy sant di ko gërëm dalal nañ ko jàmm mais daal xam naa ne daal yëkkati na deux millions jox ñi nga xam ne nii ñoom la seen doom yi des si géej gi bi ci gars yi seddalee su ma juumul daal kenn ko ci ne am na ci deux cent trente mille waaw ah, deux cent deux cent vingt mille deux cent vingt mille waaw ah, waaye daal ndimal bi nga xam ne nii daal moom la mool yittewoo mooy mool bu nekkee ci safaan ku ko gaawee daal mooy mbokkam bu nekkee ci safaan ku ko manti gaawee mooy mbokkam waaw xana di sante wa caare ñi di leen gërem di sante bépp ak lu mool képp koo xam nga wala ngay yaay wala ngay bay di la sante di la gënal di la ñaanal yalla fan bu gudd ak wër di sante surtout wa caare ndax mobilisation bu ñu def deug deug deug deug gal bu na rër na fi mais Pastef bi ma gis ñu def ko volonté bi isuma ci ben ki bo xamna ni def nañ ci nanu delo lepp dal ci yalla nanu delo lepp ci yalla nanu delo lepp ci yalla waaw loolu daal la amal lu may wax. Amadou Fall Diaw waaw sama rakk moo bokkal ndey ak baay waaw presque booy xool tey lay am 16 jours 16 jours lay am tey waaw moom ci ñi nga xamante ni ñoo doon dimbali ñi ñi ñi ci la bokk. waaw ndax man booy xool presque bu muy dem bi muy dem dem na ba ca ëllëg sa ginnaaw sa ëllëg sa laay doo xam ne moom dem na waaw waaw tàggu ma man daal xam nga xëy na ñu xam nga tefes gi moom xëy na loolu sax du dara mais comme ni mu demee man sama jëy po man yëguma ko mais sama dama daan wax naa dama doon wax naan man bu fekkoon ni yëg naa xëy na bu mu demee bu mu gaal gu ndaw googu lay dem dinaa seetal geneen gaal mais comme yàlla lu mu dogal loolu la mais man bi muy dem si ëllëg sa laay dugg benn école gis sama benn xarit mu ne waa ana ñoom lamin ba tey ñëwagunu ma ne ko fu mu dem mu ne ma dafa ñi mook doom yi sama xarit bi ñoo ànd Papa Diop ak Doudou Kane pour seeti ñooñu ma ba léegi ñëwagul ma ne ko yaa ma koy doog a wax nii maa ngi gis nit ñee ngi dugg ak génn mais maa ngi koy doog a nii après si la commencé jóg dem di def ay démarches nii quoi ba xam lu leer ne dem na waaw bi ñu it ma gis comme ñi ñu ngi seeti xale yi ndax affaire bi moom ni ah, comme bi mu amee xale yi ñoo doon euh, ni xale yi doon demee maanaam dafa am loo xamante ni manqué na ci daal mais bu fekkoon ne comme ni ñu koy waxee rek. maanaam li manqué mooy mag ñi ak xale yi maanaam ñu teel a yëgoo pour pour xam ne lii am teel li teel am ñu teel koo teel koo dox mais loolu moo yeex waaw da waaw dana jël waaw nu mag ni mais ñoom it seen jëmmi bopp nee na am na lu ko waral waaw am na lu xamante ni manqué na ci mag yi ba tax ñoom mënatunoo ah, dem ci mag ñi parce que loo gis rek am na lu ko waral waaw xëy na xale yi ñoo lay mën a expliquer loolu waaye comme li li am ba am rek mooy lii am am na xam nga li nu li nu li nu fi nu toll nii mooy ci muñ ak yaakaar ndax ba léegi ñun suñu jëmi boppa man manuma damay yaakaar ne ñoom ñu ngi toog ci géej xale yooyu nekk ci géej ñoom damay yaakaar ne ñoom ñu ngi toog ci géej ndax nit na raw na raw na ci géej raw bu ëpp bii ba pare feeñaat ndax barki démb rek Baye Gueye mi ngi ma koy expliquer ne sama benn am na seen benn xarit boo xamante ne noonu la demee ak gaal raw romb bàyyi gaal ga mu dem mu yóbbu leen ñoom ñoom mool yi géej waaw dem la ba jabaram tënj ba ba jabaram commencé tënja si la jógee ci la oo si ah, la ko boto boobu jàppoon teeral dakaar ndax gaal googu bi ñu leen bàyyee dafa am yeneen mool yu for gaal googu ko ca dëkk ba ñoom ñu nag jàppale nag kon ñoom dem na fekk botoo ko jàppa yóbbu leen pa comme ñoo ngi doog itam ba ñu bàyyi ba seen maare jeex bi ñëwee nag moom bi mu ñëwee dakaar la téléphoné ñu la téléphoné gars yi ñu xam ne moom mu ngi dund waaw yooyu yëpp ay yaakaar la ndax ñoom it ay mool lan ñu dem kenn du si cuule ñoom ñëpp ay mool man dama ne bu fekkee ne gaal ga dëppool gaa gi daa nekk ci ndox mi nii rek taw paan la wala daleen ñu ngi ci géej toog man loolu laa jàpp parce que nit mën naa toog weer du am du lekka di amul lu muy ñam mën a dund waaw loolu daal laa xam ne buñ ci loolu daal laa gën a laa gën a yaakaar ci ñoom waaw li nga li li nga xamante ni nag moo ci mooy man moo ci moo moo lu ci moo lu ci moom la moo ci si leen gën a lottu mooy boobu ba léegi caara yi booy xool li li ñu dépassé si xaalis ci xale yooyu ëpp na boo ko doon teg nii ñu koy kii ku nekk indi li nga bise wu day ëpp day ëpp 5 millions di dem kii di papay xale bi rek presque booy xool li mu ci fere ci ay ay sëriñ ak ay nangam ak nangam ëpp na 700000 ba démb rek fii mu nekk nii ba léegi fii mu nekk nii li tax fi ma doon rawee damaa war a ji woon benn paa bu ma ama bu ma waroon a jox bu ma amoon lu ma defal ma waroon ko war a ji xaalis bi moom laa doon yóbbi moom laa doon jotuma àgg sax si lan ma oo si laa war a yóbbu nii pour waree ko pour mu dem ndax sarax bu nekk day ànd ak weexal weexal bi nag laa joxil woon moom laa doon yóbbu mais ba tey lool xam nga loolu yaakaar la ki nga xam ne feeñagul gisagoo ko nga ciy fere xaalis xam nga loolu waaw yàlla bu yaakaar la yaakaar rek parce que foofu rek lan tollu ñun waaw lan lan manoon nañ ko ca commencement ba dem ñëw dem ñëw jaar fu ne ñëw gisatuñu dara léegi leen yàlla moo fi mas a des nag mais comme ñun olof dañ naan yàllaa fi des xam nga foofu lan toll waaw yàllaa fi des waaw loolu daal lan xam laa xam ne. Moustapha Diop. waaw ñun bi nu bi gaal yi euh, réeree noonu ma ne premier jour bi euh, bi ñu déggee information bi boobu kembur. ngi ma fekk Mbour après ñu tamit di jokkoo ja instant bu ne nag parce que daanaka dëkk boo xam ne nii aussi lu dal kenn rek daanaka dafay laal ñëpp ci saasi nag ci la commencé di oté di di laajte ban position la ci wa dëkk bi taxawé après ñu xamal mané tamit ñëpp nga ngi instant bobu ñuy xol ay gal parce que su mol amé jafe-jafe bala daanaka bala autorité di di réagir mol yi dañuy dañuy ñom ñoy nekk première ñi ñëk réagir légui nak ci moment bobu dama don xol position wu ñi nga xamné ñom ñoo ness dëkk bi ñu xamal mané tamit ñëpp ñu ngi jóg am na ay gaal yu jot a tëmb dem nan ñu ngi leen di seet ba ci euh, ginnaaw ëllëg si gaal yi njëkk a dem ci première jour bi gisuñu gaal gi ñu daal di ñëwaat si beneen jour bi ñu ne ñeneen dem nan te comme yor nañ benn panel ci groupe Thiaroye bi instant bu nekk information bi di daw daanaka ñëpp yëg nañ ko ci saa si léegi am si nag benn booy boo xam ne moom bokk na sax si ñu dem te ñëwaatuñu moom euh, dernière vocalam bi sax maa ngi ak moom bi muy wax naan bu subaa ci kàttanu yàlla dana ñu def lépp lu ñu man pour dem parce que affaire bi mu ngi gën a yàgg ci saa si man sama moo nekkoon yàlla dafa dogal ma nekkoon ku am ay contact ci autorités yi ministère ak yooyu euh, ci saa si ma commencé di leen woo mais ñi ma ci jé jéem a woo ñëpp mënu ma si woon jot kenn pour mën leen alerter ci saa si parce pour pour ñoom ñu teel réagir daal balaa affaire bi di catastrophique bi ma demee ba mënuma leen jot mënuma leen jot après ci laa am ñu ma woo ci dëkk bi ci waa dëkk bi ñoo xam ne tamit yàlla dogal na ci si biir liggéey bi ñoom xaw nañu tane daal après ma expliqué leen ne leen daal sama xel daa nekk ci ma dem jéem a ut ñu ma àndal dem comme euh, ngelaw li dafay yóbbu gaali yi côté penkook yooyu ci ni ma xalaatee instant boobu courant bi mu ngi yóbbu côté sow lay yóbbu mais ngelaw li côté penku lay yóbbu léegi boo xalaatee ci en tant que mool da ngay gis ne bu mbaal nekkee si biir ndox mi courant bi day déplacer gaal gi pour mu jëm côté sow mais bu dee mbaal nekkul xottu gaal kese ci kaw ngelaw li mooy euh, dominer moo koy yóbbu si laa ne kon comme mbuur laa nekk naa am ñu ma àndandool ñu dem après ci saa ñu débloqué am ñu ay bonne volonté euh, ñu génne xaalis ku mel ni njaw bay ak ñoom Sambay li ñu génne lépp bu ma ko boolee mu ngi toll ci ak quatre cent mille après ci la ñu préparé ñu jënd essence bu doy jënd euh, ay lekk ak lépp mais après ma oo ku benn waay mu ñuy wax Abibou Ndiaye mooy président moolu Joal yi moom mu aussi inspecteur Diouf bi nekk inspecteur régional bu Thiès moom mu woo ma ci saa si ne ma su ma bëggee ma ñëw jël kanootu euh, Joal gi wala ñu yónnee ma ko Mbour pour ma demee ci. après comme sama grand bi tamit wolul sax kanot gi gal gi la gëna wolu wóolu mo insisté né ma demal rek ak gal gi mais après wa tiaro yi bima joko waté ak ñom dal leni ñaan digël ne leen dama bëgg dem séti gal gi ñom ñu né ma pour ma patienter ma patienter ba ba ba heure bi ma perte heure euh mu nekk ay presque 16h fekkama ma ma xamné heure bobu ka teumba ma ne naa déglu waxu kilifa quoi sa ëllëg sa xamuma lu tax ñu toog loom ci ëllëg sa aussi euh, ma insister xëy teel a xëy suba teel di leen ërtal tamit ci ay lii mais ñoom ñu ngi doon recevoir ay autorité ak affaire yooyu mais autorité yi à tout moment dañuy wax ne mool yi bu kenn dem na mool yëpp toog état dina ko jël en charge autorité yi dinañ dem hélico waa xam nga ci période boobu noonu ñun xamaguñ ci woon dara parce que dañuy wax ne rek. hélico bi dina dem marine bi dina dem mais saa yu ñu xëyee dinañ ut ay renseignement mais ñun xamuñu ci mënunoo wax ne dem nan wala demuñu ñun xamuñu ci daal léegi nag bi ma tëmbee man si la si la départ euh, benn maanaam dama tëmb ay deux heures ca parce que xaaraloo nañ ma mënatumaa xaar ma dem bi ma demee deux euh, maa ngi tëmb ay euh, treize heures treize heures ma daw ba bëccëg gi jeex ma fanaan ci géej dawaat bëccëg ba mu jeexaat après gisuñu mais bi bi ñu demee ba ay ay 17 heures ñu ne nañ comme Gambie moo nu xaw a gën a jege ndax suñu diggante ak la Joola mu ngi nekk ay 117 kilomètres ñu ne nañ dugg Gambie ñu renforcer carburant ak lekk pour mën a demaat mais benn bato gis nañ ko ci biir géej moom wax na ne jot na message bi alerte bi waaw loolu ñun sukkandiku nañ ci ne instant boobu autorités yi def nañ alerte bi alerte maximale léegi mais ñun wax dëgg yàlla demaat nañ jógewaat nañ Gambie demaat demaat defaat ci géej yenduwaat fanaanaat waat encore mais gisu wax dëgg yàlla man gisuma gisuma hélico gisuma marine gisuma dara daal mais waxuma ne ñoom euh, nekkuñu ci woon waaye man tracé yi ma def euh, ak localisation bi ñu ma localiser aussi ku xool di nga xam ne man dem naa def naa lu maximum daal def nañ lu nu man ak jour yi ñu def mais wax dëgg yàlla euh, gisuñu marine gisuñu hélico daal wa problème bi ci gëna majeur nak bi ci ëpp doolé actuellement moy problème mu moteur ñun mom lañuy jankonté lool mom bo démé Cap screen ba Ndar mol mo laaj problème mu moteur la ñuy ji suñu premier principal problème ndax moteur yi euh, dañu dañu ag actuellement ci prix yo xamné ni prix yu ñuy jar yo xamné mol dafa am problème mu jënd ka parce que dañuy yaakar né mol yi nappakat yi ñoy yor xaalis ñoy yor xaalis ndax bo xolé si geej gi gal yu ndaw yi ñoo gëna bëri fouf gal yi Takoyor ku yor gal gu ndaw gal gu mag nga bëgg am mais comme ay néew di doole lan moteur yi prix yi mi jar buñu démé demee ba mënatuñ ka jënd léegi dañuy utiliser moteur yi màgget yi moteur yi màgget yoy nak ñom ñoy pan ci geej gi nak wa xam nga la fin est plus forte que la peur te nit tamit ñun mënunoo toog baña dem mënunoo toog bañ dem dem mom fala bu da dinañ Mom def mom mom buñ doon jow di dem sax dinañ jow di dem parce que amatuñu leneen luñu yaakar lu geej gi geej gi lañu am ta silan lañ dem rek dem mom dem rek. mba moo tax keroog euh, bi fi ministre bi ñëwee aussi wax naa leen lool nee naa leen autorités yi taxawaay bi ñu fi taxaw ñoom di massaw si waa dëkk bi ak di leen jaale ñu ngi leen di massaw si si problème bu waa dëkk bi miin problème boo xam ne day répété wu à tout moment léegi nag li jara wax mooy saa yu ñu fi jugee it bu ëllëgee même même ñi ñooñu dinañ ñëwaat massaw fi waat ñeneen wala seeni moroom ñëw fi massaw fi ñeneen mën na doon man mën na doon samay morom

un mois bi ñu ne deuxième phase même pas un mois le 1er novembre bi le prix yi est encore Quand lan moo tax subvention subventionné waral moteur est di 26 000 Boy, subventionné nga subventionné prix bi ñeneen est nga de problème Le si moteur yi actuellement 3 millions 800.

ñan nan yalla suñu njabot fekk ka fi waye nak nan ñew fekk ka ci bonne voie xam nga fekk ka ci lo xamne ni aussi dina dana dana dana oyef ci ñom ya lool moo tax loolu rek la ñuy wax autorité yi nak moteur yi nan leen wañ te ñu bañ jël seen bëd bi tek ka tamit ci neem napakat yi dañu am wa loolu tamit euh, lool tamit manam pour nek en règle la rek pour nek en règle la rek dañ lay exiger na la napakat yi waa li ëpp ci nappkat yi ñu ngi koy respecté moom li ëpp ci ñoom ñu ngi koy respecté dafa mel ni euh, ceinture tey yi euh, oto yi wa ceinture de sécurité ci oto yi tey doone Sénégalais yëpp euh, ñoo ko respecté wul. gilet de sauvetage aussi état bi lu mu fi indi ci gilet de sauvetage ñu wàccee ko ci marché yi lu taxaw ci marché yi amul lu ñu fi indi jënd nañ lu ñu fa ñoom dañ ne vingt mille gilets la ñuy subventionné par at. saa yu vingt mille jus la ñëwee du def un mois ak mool yi ñu jënd ko mu jeex kon mënuñoo wax ne mool yi respecté wuñ seen mesure de sécurité mesure de sécurité kay pour ñu respecté ka dafa dépare ci état def devoir am ci digganteem ak nappkat yi li ñuy récolté ci napp gi ñu ci soutenir nappkat yi ñu accompagner leen ci si matériels yi ñuy jënd accompagner leen ci yu ne am na appareil yu bees yu génn géolocalisation yu bees yoo xam ne ay téléphone satellite la tay buñ ko subventionné won bam oyof mool yi nappkat yi bi yor ka ku nek ci geej bo amé problème bo oowee sa waa kër ñoom mën nañ laa jël ci du boba du jar ñom sax ñom ñi déplacer wu mais xam nga buñu togué ñu afficher indo ba paré di dawal kaboy lool tamit xam nga ya problème. lool ba ngeen lajé ministre bi lu mu wax dina ko subventionné wala du ko subventionné. wa parce que ñun biñuy waré dem pour seeti gi test biñu waron def appareil bi ñu joxoon pour ñu testé ci ka waa société bi ñoom dañu ne dañ koy jaay ci terrain bi nappkat yi directement parce que ñoom nee nañ demoon nañ ci ministre bi wax ka euh, mais boobu dafa tombé ak Aminata Mbengue Ndiaye moo fi nekkoon mais ñoom nee nañ daal ñoom parewuñu woon ci instant boobu mu waxee pour subventionner ka moo tax nan koy wàcc ci nappkat yi mais ñu ngi leen di ñaan loolu si sunu mesure de sécurité la bu ko état mënee subventionné aussi moo li jot ci loolu daf ñuy dimbali parce que en tant que nappkat moom wax dëgg yàlla ñun luy sam suñu sécurité ak suñu bakken wax deug yalla lu jaral nañu lu ne nak mais buñu ko amul tamit amuñu ko amuñu ko dañuy def liñu am liñu man buñu ci danger fekke it mënuñu ko gis biñu dem parce que ñun liñu ñor moy dem uti am ñew bok ak suñu njabot wa problème yi am tamit bok na ci jën wu sori jën wu sori parce que comme yalla dafa dogal gis nga septembre bi 2019 bi lan renouveler wat contrat de pêche ak union européenne te buñ nee géej gi dafa surcharge ci pêche artisanale ba plaque matricule yi joxeetuñu ko sax parce que dañ dañuy bañ li mu gaal yi gën a gën a yokku ba pare ñu signewaat ak ay union européenne xam nga loolu yaa problème loolu ñun mënuñu kaa comprendre léegi nag lu jën bi gën a sori nag hmm? mool yi di gën a sori ci géej ak moteur yu bon di gën a sànku di réer moo tax suñuy problème ñun moom boo bëggee dëgg-dëgg problème yii nii nii nii kanam la jëm waaw parce que tey bu fekkee ne ba yi ravagé nañ jën wi yëpp euh, da ngay mujj di àgg ci géej foo daawul egg man bis bi may seeti gaal gi dem naa ba soixante quinze kilomètres ci biir géej ma fekk fa genn ñaari gaal yi ndaw yàlla xam na ne sama yaram wi dafa daw sax ñëw naa ba taf leen manuma leen sax taf gaal yi ndax tuuti goñ tuuti te gaal gu nekk trois personnes a ngi si mais mais man xam naa ñii li tax ñu ñëw fii mooy xam naa ne ñii ñàkkat fii ñu ñëw nii man man boog man ñemewuma loolu man dafa dangereux mais xam naa ne ñi li leen fi indi mooy bëgg am kese moo leen fi indi ak lu mu danger danger ñoom duñ gis danger bi mooy li ma waxoon la faim est plus forte que la peur mais gis nga bato yi laa wax nekk si géej gi di ravager jën yi di gën a sori mool yi di gën a sori moteur yi gën a seer mool yi amuñu moteur yi bees ñuy gën a dem xoolal problème yi moom kanam la jëm moom waaw